Amen. billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax uh, ak di leen ziare di jiital uh, ci nuyoo ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan bu baax suñu boroom guddal fanam te wéral ay cëram bu baax ni ki noonu la ñuy jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi ànd ak ñun ci jataay bi moo xam fépp foo mënti nekk ci réew mi ak li génn réew mi waaye di nuyu ak ziare sëriñ Amsatou Mbacké moom sëriñ Souhaïbou di ñaan bu baax suñu borom guddal fanam te wéral ay cëram bu baax a baax a baax mbokk yi képp koo xamante ni rek yaa ngi gis jataay bii te dañu topp jamono ji yëpp ci jataay yi nga xamante ni ñu ngi leen koy indil xam ne ñi ngi waajati bis bu rëy boo xamante ni saa su nekk buy ñëw rek mboolem axlu xasida dinañ xam ne ñi ngi waaj bis boo xamante ni bis la bu mat a waajal waaye ci biir loolu ñu leen di beral ay jataay yoo xamante ni jataay bu ci nekk rek matoon sëkk li nga xamante ni mooy wàccaayu bis bii tey jii nag ñu ànd kook daara ju mag joo xamante ni ñu ngi fii ci dakaar daara nuur daare ni doon ay jàmbaar lool ci liggéeyub xasida yi waaye it amun ñu am ay diggante yoo xamante ni am nañ kook Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Souhaïbou saa su nekk mën nañ ñe ñuy teew ci liggéey bu tedd bii nga xamante ni ñu ngi koy amal foofu ci Touba Jaalibatul Maraaxib macha allah ci biir loolu ñu fas ne ànd ak ñoom ci jataay boo xamante ni it day bokk ci jataay yi nga xamante ni moom lañ leen indil ngir jale ko li nga xamante ni mooy bisub xasida boobee di màggalu xasida yi kon xam naa du ñu def lu may teewlu leen rek ci ay bëyitu xasida dikkaat ak yéen ci jataay bi nga xamante ni incha allahu rabi dinañ ko ànd ak ñenn ci jëwriñu daara yi ñu wax lenn ci euh, seen diggante ak Serigne Amsatou Mbacke moom Serigne Souhaïbou waaye te euh, wax ci xasida yi nga xamante ni tey jii moo tax ñu toog fii ngir bis bi nga xamante ni mën nañ ne bi ñëwee bisub màggalu xasida fii ci Sénégal àdduna sax la ñuy wax mën nañ ne foofu lañ koy digg ci Touba kon saa su nekk ñoom it ñu am taxawaay bu am solo boo xamante ni dañ ko ciy amal ba loolu sabab jataay bi kon ne surtout kon ñu ànd ak yéen ci ay béyt yi nga xamante ne fas yéene nañ ko jël ci kuréel gi nga xamante ni kenn dootu leen présenté ti jërë ngeen jëf mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee waaye di amaat contente euh, bu baax ci baytu xasida yooyu nga xamante ni képp koo xamante ni rek yaa don doon topp jataay bi ci am njàng sa xol sedd na bu baax ci njàngin mu am solo moomu nga xamante ni daara nuuru daara yi ni amal nañ ko mu doon njàng moo xamante ni képp koo xamante nga ko rek te ànd ak ñun ci jataay bi gënati nga am mbégte ci njàngin mu am solo moomu nga xamante ñu ngi ko daane léegi waaye ba tey mbokk yi di fàttali rek ne ñoo ngi fii ci bërëb bu tedd fii ci Masaalikul Jinaan li tax euh, Masaalikul Jinaan nag bis bi nga xamante ni ñu ngi koy waaj muy màggalu xasida yi bis la boo xamante ni bisub murit yëpp la te tey jii bu ñu nekkee fii ci ndakaaru mën nañ ne fii mooy pencum sëriñ Touba ci biir loolu lañuy nuy bu baax a baax a baax jëwrinu liggéey bii nga xamante ni buñ ko tuddee rek martale nañ mbooleem jëwrin yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Masaalikul Jinaan muy sëriñ mbakk yu fay moom it eh, mu doon jàmbaar lool tijjil ñu buntam ci jataay bi nga xamante ni ñu ngi koy amal fii ci Masaalikul Jinaan te koy laytaaye li nga xamante ni mooy màggalu xaside yi di ko jaajëfal bu baax di ñaan suñu borom gën a dëgëral taxawaayam bu baax a baax ni ki noonu la ñuy ziyaare waale sëriñ Mor Dag ñi eh, nga xamante ni bokk na ci ñi tax jataay bi mën a am fii ci bërëb bi macha allah waaye xam naa dañuy daal di xuusin rek ci biir jataay bi nga xamante ni mbokk yi comme ça su nekkee niñ koy amalee rek ñi ngi fii ci Masalik waaye ñi ngi ak Serigne Ahmadou Diop ak euh, Serigne Mambal la fa seen ne ànd ak ñoom ci ay tënk yu gàtt yoo xamante ni rek dañ koy euh, jukki moo am ay kàddu soññee la ngir jëm ci li nga xamante ni mooy liggéey bu tedd bi nga xamante ni moom lañ dëgmal waaye du nuyu bu baax Serigne Abdoul Aziz Diop mi nga xamante ni saa su nekk moom la ñuy àndal euh, ci liggéey bi ak képp koo xamante ni rek yaa ngi ànd ak ñun ci jëm liggéey bu tedd bi nga xamante ni ñu ngi koy amal di ko waajal li nga xamante mooy màggalu xasida gi sëriñ bi li mu ci wax rek karaamaam fi mu jaar bari na waaye xasida yi rek la ne mooy sama karaama kon du ñàkk ngeen am ci ay jàngat yoo xamante ni di ngeen ko am ci bis bu toll noonu nga xamante ni ñi fay teew ci mbooloo dina takku takk goo xamante ni kenn du ko mën a lim waaye rawatina ci mbokki jànkatu xasida yi nga xamante ni ñoo fay teew ban comportement la war a mën a amaat ci liggéey bi nga xamante ni maanaam liggéey bu sell la bu kawe boo xamante ni ku ci suñu borom boole rek damaa jàpp ne ak tànneef nga bu baax a baax a baax sëñ Mame alhamdulilahi rabbil alamin sabbit janaani wa saddit mantiqi waqi nii laxnan bi indaami ma qad kaana wijjaana barke Sëriñ Tuuba ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ku tedd ki Sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi te wér di ko ñaanal taalibe yëpp di ko ñaanal Serigne Hamzatou mi nga xam ni tey moo tax ñu toog fii di waxtaan ni lu jëm ci xasida yi dañuy tàmbale rek euh, lu jëm ci xasida yi tàmbale ko ci alquran rek benn aaya alxuraan bu Serigne Mouhamadul Bachir Mbacke ibnu Seexul Xadim doon wax murit bu nekk war na def saa yu toogee di bàyyi xel ci aaya boobu mooy fi suñ borom di wax wazukuru إذ أنتم قليلون مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون نينا فاتلي كولين في يالا دي واخ صحابه يي اك يونت بي صلى الله عليه وسلم ني فاتلي كولين بيغي نيكي مبولو مو نيو نيك نيو دولي سي سوسي لي مي نك سيرن بشيرون مو Murid bu ne war nga tok di yonu murid ndax yoonu murid moy li won rek ci yoonte bi mom la sëñ Tuubaa andiwaat nee na nek ñu neew doole ragal ku len lor kon loolu yoonu murid lay wax rek ndax ci xaside yi la bëgg ñew motax ma tambalé fofu tollon na jamono yo xamni ni ko daan jang mag ñi dañ leen daan sonal comme na noddu tëwe won ñu nekkon ci l'islam ba Omar ñew dindi ko nu ko raw melon nako ci yoonu murit nga xamni kuy nodd rek da ngay euh ba mag ni ñew ci Serigne Touba di ko jambat. ne ko ñun de bu ñuy jang qasida yi dañuy sonal Serigne Touba tok ba yag na len wa mo bu ñu bay jang seen bop nak am qasida yi kon day wone ne li Serigne Touba wajal ci qasida yi moy bind ay jëm yo xamni qasida lañuy doon ndax mo ne man qasida yi mako bind qasaidi maa leen bind waaye ñi koy jàng maa leen tànn kon ñoom ñaar la boole moom moo ko bind moom rek ñi koy jàng de moo leen tànn ne jàngal ma ko di ku ci bokk rek sëriñ bi moo la ci boole. muy lu sell nag loo xam ni ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa moom la Sëriñ Tuubaa yëkkati ca kaw daan ne karaamati xattu yat yi daan sama karaama kat du li ngeen jàpp ne moom laa def ci géej gi wala leneen ak leneen loolu karaama la sax ci ñun ndax ndax kenn mënu ko. waaye moom ci moom du karaamam moom moom li mu def karaama mooy bind bi mu bind ci ay loxoom muy xasida ndax léppi murit ñi ci la ne lim liggéeyal yàlla yëpp ci xasida yi la ko def dëkk yi moom sax ci xasida yi la leen dugal dégg naa ci kilifa gu mag mu wax ba wax ne benn wàlliw bu mag ci yoonu murit wax na ba wax ne tënk yi ci alxuraan sax Sëriñ tubaa boole na ko ci biir xasida yi waxale ko nga xam ni ci ay dëkkam la ko tuddee boo jàngee taat siin mim taa gi tuubaala siin gi Daaru Salaam mim gi Daaru Muxti nga xam ni léppam rek booy seet ci biir la ko def bawal gii mu dëkk wala ñu dëkk fa ñun ñii ak ñu dëkk Kajoor rek ñëpp Serigne tubaab boole na leen ci biir xasida yi ak seeni xéewal ci minanul baax xadim dafa jël tur yàlla yi dugal ci biir ne naa daaniya taslimu baaxin wa waliyun wa latif ala risi karamuhu biye yatuuf daan ne woo naa sama borom ci tur bi ñuy wax wali yaa wali yi muy waaw ci waaw la tàmbalee wala latiif ak laamu latif boobu di nekk ci latif hmm? ak baawu baaxin baaxin wala ak latif muy bawal ñetti tur yooyu la jël naa daaniya taslimu baaxin wa waliyun ak waawu wali wa latiif ak laamu latif muy bawal mu ne ala lazi karamuhu bi yatuuf kon foofu la ko xéewal yi di wërsee kon lépp daal bi ñu koy seet ci biir xasida yi la ne mu des itam sellaay gi xasida yi sell kon ñi koy jàng itam war nañoo fexe ba sellal seen xol ndax am na loo xam ne Sëñ Tuubaa du ko fàggul kenn am na loo xam ne nit mooy moo koy fàggul boppam léegi nag boo ñëwee ci xasida yi jàng ko nag la la sëñ bi fàggul ci xasida yi nag loolu mënuloo ko sa bopp mooy fexe ba li sëñ bi di digle nga ne ci li muy tere nga ba bo jangé khassida mu nangu ndax khassida yi bala ko kenn nangu day nangu ci serigne bi maam serigne bi lam la digel yow dang koy def ba nopi nga soog a am accès ci alalam ndax alalu nit la nga ci jariñu da ngay top digelam fo respecté ko mom mel kan wu yiw top ko ndax afa am ku mësa a ci mom ne ko dama bëgg nga ñaanal ma ma mel ni yow ndax boma ma sama borom dina nangou ñaan gi muniko jang nga izaja akal munafiqun muniko waaw muniko jangal mu tàmbali isa jaaka al munafiquna qaalu nashhadu mu ko taxawal ne ko loolu moo la teemel ni man ne ko nashhadu ñaata xaraf la mu ko ñeent nuun gi mu ko mooy nafsu xeexal ak sa bakkan ba lépp lu bon nga ba ko shin gi mooy seytaane mu ko xeexal ak seytaane ba daan ko xël kubéer gi mooy xëwaa bànneex xeexal ak moom ba daan ko deel gi mooy duniyaa mu ni ko boo boo xeexee ba daan ñeenti noonu yooyu boo ñëwee ma ñaanal la nga mel ni man kon nag nit ki am na xeex bu mu war a defal boppam te boo xoolee ci mbindum sëñ Tuubaa wax na ne li tax seytaane amu ci cër yàlla rek rek rek a tax mooy yàlla xool na ci ñeenti yooyu yëpp benn noonu amu ci cër ci ñeenti noonu yooyu nee na mu soo a tudd xas xasaa idul kiram yàlla soo ko noté ci xaside yu tedd yi kon mbooleem xaside bu mel noonu nag sëñ Tuubaa dane faaqat kawe naa ko xasida tii faaqat xasaa idul kiram sama xasida yi ma bind kawe na mboolem xasida yu keneen bind ak ku mën a doon rek xasida Sëñ Tuubaa yi kawe na ko moom loolu nag moo tax mu mën a jàll am am accès ci aras ndax aras lu sell rek dafay jàll moo tax mu ne isa katabtu itaz arsul baaqi su ma tàmbalee di bind rek aras araf dafay tàmbalee jaayu mooy daf koy recevoir rek day nangu li may wax day jàll aras wa sabaxat malaa'iku tibaaqi nee na malaayka yi sunu borom yi yi ne kaw asamaan ak kaw suuf yëpp dañuy àndandoo ñoom yëpp di sàbbal yàlla naan subhaanallahi subhaanallahi subhaanallah kooku ci mbindam lay ame xasida itam ci la amee loo xam ni yonent yi sax amuñu ko woon ci seen nit mooy ñëw fexe ba kum kum kum joosal jubal la yonent yàlla noox woote ne junni at yu manqué li ko topp ci mbooloo matul téeméeri nit waaye Sëñ Tuubaa bind xasida yoo xam ne bi mu ñëwee boo doon xool tey bu yonent yi doon teewal seen mbooloo Sëñ Tuubaa indi mbooloo mi xasida yi jubal li sëñ Tuubaa jubal ci mbooloo ab yonent mosu koo jubal ci mbooloo xaside yi lim jubal ci mbooloo moo tax mu ne defal ma sama xaside yi sama xasaayid yi ñu mel ni nabiyul mursal yonent boo xam ni dañ koo yónni ci aw nitam kon koo xam ni la bind rek moo mel ni ay yonent kon sa jëf kenn xamul nu mu toll sëriñ Tuubaa lu kenn xamul la yonent yàlla Moussa samaani ya xijijin la liggéeyal yonent yàlla bu ba mu noppee soxna lañ ko may xoolal yonent bu def juróom at ci liggéey ba pare ñu jox la soxna Sëriñ Tuubaa juróom-ñetti atam wala juróom-ñaari atam ci luñ ko jox ci la ne ijan ruju'i ila qawmi saadatana wal takfina xam nga loolu la ko jox ci ci ci liggéeyam boobu te juróom-ñaari at la def muy taxe mbindeef yëpp kee moom juróom-ñaari ñetti atam ba dool wis na ko sax wis na ci yonent Yàlla Suhayb bi ndax soxna si mu ko doon may wis na ko ñetti at muy fukk ñu may ko soxna kon nañu xam kan mooy seriñ bi ci ñun ak lan mooy lan mooy ay mbindam nan lañ koy téewee nan lañ koy jàppee sëñ Amsatu daf ñu bëgg a dimbali te xam ne ndimbal li ci gën a gaaw mooy jàpp ci ki amee ndimbal rek mooy xasida yi moo tax mu booleeg ndaw ñëpp xasida yi ndaw ñëpp dem songu ko nag ndax ku amee ndimbal ñëpp sëñ Tuubaa dane ndimbal li ma am wallaahu yansuru nii allahu yansuru nii wal xalqu tatbahu nii fil barri fil barri wal bahri za nafin bilaa dararin la de bu doon lool kenn te amul benn njariñ kenn du ko topp kon ku fi am njëriñ rek ñëpp daa wut si la kon loolu rek mooy mooy mooy wax ji ñu xam ko te mbooti alquran ak mbooti tawret mbooti injil mbooti zabur bi sëñ Tuubaa di bindi daf ko jëlaale bolé ko ci bir xasida yi bo jangé fazat moko waxal bopam dane fazat faasat xilaamil yawm bil khayrayn ni man yakfini fii dayrayn la ne fagi moy furqan furqaan inji mooy injil tagi tawret zayn gi zabur daan ne yooyu xilaam yi dugalaale ko sama bir mbóot sama bir xasida wax na itam ngëneelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la muy bari bari bari benn rek la ci ñëpp daje maase am yahud yi nasaraan yi ci lañ beew ba di ko pasar pasare waaye man juróom-ñeent yi ci des yëpp bu ñuy jàng sama xasida yonent bi daf koy joxe daf ci tamit di ko joxe daan ne yabbu sumti daaxi jumlata xaasa hën na bi minan nafxi wa huwa al bahru zul jalbi wan fi kon li yonent bi dencoon ci mbaggam yi muy ay teraanga ak ay ngëneel yëpp xasida képp képp képp la nit mën a jàng mu génn te it nee na ci lawul mahfuz laa ko jëlee te du ci aliwa yu ndaw yi maanaam aliwa juróom-ñaari aliwa la benn bu ci nekk suñu borom bu ko neexee mu jékki-jékki effacé la mu fa defoon li kulli ajalin kitaabu yamxullaahu maa yashaa wa yusabbit nee na nag wa indahu umul kitaab li may jëlee maa ngi ko jëlee ci umul kitaab laa koy bindee uktubu naaqilan min allawxin wa min xalamihi wa fi xurufihi lam amin nee na sama bind bu ma leen jël jox leen ko maa ngi ko toxalee ci lawul mahfuz kon nag xam li lay jëriñ am na solo lool waaw kon ñu ngi tëjee foofu macha allah jërëjëf sëriñ Mame Balla ci kàddu yu tënk yooyu mbokk yi yaakaar naa li ñuy la woon ci wàllum waxtu romb nay wéy xanaa rek di jaajëfal képp koo xamante ni yaa ngi jataay bi moo xam ñu ne ci barab bi la moo xam képp koo xamante ni te fépp fu ñu mën di toppee ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax mm-hmm. waaye ba tey di jaajëfal bu baax a baax daayira jàngatu maraaxit nekk foofu ci maris àndoon ak ñun ci jataay bi ngeen gis xéewal yi bàyyeekoo ci ñoom waaye loolu lépp ñoom it doon kenn ci sëriñ am solo Mbàkke moom sëriñ son bu bu ñu tuddee sëriñ daaw dara ak loolu ñu ci ñu baax a baax baax day mën a siyaar nañ mbokk taal yëpp mbokk yi fii rek la ñuy yemande ak yéen di leen joxe dig daje suñu yeneen élément kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu فزت بزار في الحسنات سيدتي أحدا من سلكي يقول dal inna